asalaamaaleykum wa rahmatullah maa leen di nuyu di leen siyaar waaw man la Ousseynou ñu gën ma xamee ci Karbala waaw maa ngi ñaanal euh, xalifa bi sëñ Muntaxa yàlla na fi yàgg lool te wér maa ngi euh, ànd ak daayira Mafatihul Jinaan ñun waa Kaase ñu gën koo xamee ci Karbala Couture ñoo ànd ak yéen ci waajal màgg ولي آدم جرا ولي الجنة أقاساني الحنان من من غلا وساركنا للجن للإبار ما يمكن ولوهي وكالبالي وجسمي لمن ديوان أجوت بيس الله من سلوة العيدا ولي آدم ترا ولي كرم الجنة

كرم الجنة أبا سامي الحنان بملكيد من غلا وساركنا للجل للإبار ما ينبى وأقلامي assalamualaikum wa rahmatullah mbokki taalibe yi ñu ngi leen nuyu waat baax kenn ku ne sa tur ak sa sante waaye leen jaar ci wéru tedd wi leen baal ak leen baal di ñaan sa borom bo leen jéggal waa kay liñ am yéene leeral mom moy programme bi nga xam ne mom la daara ji di doxé waaye programme bi nga xam ne ni am nañ ko ci wéru janvier le 11 janvier bala di le 19 juillet booy seet mu toll ci 7 mois daara yi daa am programme bu muy doxee ci nafar léegi nafar yu nafar boobu bokk na sax ci kii yi ñu bëgg a joxe ni eh, neexal yi ci loolu lay aju ci ci nafar boobu kenn ku ne xame ko noonu ginnaaw yi bu ñu leeralee li jëm ci point yi dina am tuuti lu ñu soññee ci suñu bopp ñun ñi nga xam te ne ñun ñooy parents d'élèves yi wala bok ñom ñoy waajuri ndongay yi nafar ni la demé amna na ñuy wax marem geey mom 2300 points la am cent points bu ngeen ci dégg nak isib la kon day am 23 trois isib bu ngeen ci dégg rek bu ngeen bëggee xam doyo bi dañ koy diviser par 100 da leen jox doy da jox ñaata isib la nafar ci 7 diru 7 mois yoy Mouhamed Sall moom moo ci topp moom nafaram mi ngi ci 703 kon nombre boo boo ko bëggee xam ne li ma leen waxoon rek boo ko divisé par cent mu jox leen nombre nombre issu bi yim nafar ci ci 7 mois yooyu Ousmane Diagne 588 moo jël ñetteelu place bi. bind waaw xisi bi nga xam te ne moom lañ jël ci bind waaw loolu lay jëwriñ di jooyante ci biir daara eh, ci weer yooyu noonu eh, quatrième bi maam Malaka Guèye hmm? Mamba Guèye waaw moom cinq cent soixante-treize points Dame Fall 563 muy cinquième place bi Fallou Diagne. salaamaaleykum muy sixième place maa leen nuyu di leen siyaar. Ibrahima Fall waaw man la Ousseynou. 397 ñu gën ma xamee ci Karbala Couture. septième place bi waaw maa ngi ñaanal euh, xalifa bi. am na yàlla na fi yàgg lool te wér. maa ngi euh, ànd ak daayira Mafatihul Jinaan ñun waa Kaase Ibrahima Fall gën koo xamee ci Karbala Couture ñoo ànd ci waajal màgg jom boni Fall Diop deux cent quarante-trois moo seen place Mokhtar Diagne deux cent quatorze Awa Diop mooy treize place Cheikh Mbaye أقلامي ولوهي وكلماتي وجسمي ودمعي Mame Matar Mbengue 160 points, 17e place Ousmane Dieng 159 muy 18e place Mame Diarra Diop 157 muy 19e place Maguette bi ñooñu leen wax ne am na yéene jox leen ay neexal loolu nag liñ ciy jàngee boo nu xoolee euh, ku ñuy wax Marème Gueye mbiram ñëw na ñëw na daara bi waxtaana na ko daara ji waxtaana soo seetee da leen a raw ci lu lu kawe njot loolu nag gis-gis bi ci am Marème jàmbaar waaye waajuram jàmbaar man dama cee dama cee am mbégte lool sax li doon jigéen ndax fii ci réew mi ñu nekk rawatina fi dëkk bi ñu ne muy Kër Moussa jigéen moom boolewuñu ko ci alxuraan wala wala wala wala ci jàngalam diine jamono toll ndax fi jamono toll. kon kii waajuram def na ci liggéey xam nga ne kii ñu maanaam kenn woowul waa daare ji ni leen may leen ma mu mu lettu ji baa mu baa baa mu baa mu fonte kon kii da nga yëg ni waajuram respecté na ni muy jànge nan xam ne ndongo yi bu ni jàng luñ jàmbaar jàmbaar jàmbaar te seeni waajur seen taxawaay ya manqué mënu ñoo wax wax ba du feeñ ci ndongo bi ren jii def naa yéen a ki jël deuxième di mondial Sénégal gi la dëkk ñun alxuraan moom moom rek lañuy jël mondial te alxuraan moom mooy li nga xam te ni ñun ñun Sénégal ñun ñëpp moom la ñuy ko bañ na ko ba nee naan moo téye réew mi kon def naa war noo toll foo xamante ni waroon nanu bu fekkente ni fi mu toll ni masalan li ma mën a leeral ci ci ci loo xam te ni ñëpp dañ ko mën a dégg tey jii ñun nungu naan sunu doom xàmmeewul tey jii ñu ñu nangu ko jox sama xarit tey jii mu yóbbu ko foo xamante ni yaakaar na ni mën na faa jëlam koom loolu moom ñun ñëpp nangu na lool. masalan li ma bëgg a wax moom mooy tey jii mën naa mën naa am sama njaboot mën naa koo booleek mën naa bañ xàmmee sax mën nunga koo booleeg tey jii ku ma ne Mouhamed Ndiaye ndax ni ma ko miinee ak jikkoom mu génn ak moom réew mi bu dee na fa amam koom waaye pour dañoo téyal daara ji maanaam gor ak gore lan lan ko téye léegi rek maa ngi xoolaat environnement bi maanaam dafa am loo xam ne nii lu ma jàngat la maanaam ndongo yi ci boppam maanaam danoo danoo danoo ñime sax ñi leen jàngal ku ne xam ne ne yéen ñun ñi ñëpp jàng nan ku ne xam na ne boo daan jàng te gis ki nga xamante ni moom moom mooy ki la war a jàngal muy xam sa sëriñ la wala sa maître la mbedd moom aw doo fa nangu aw maa ngi gis sëñ Diop nekk fi kenn mu ngi la dégg fi ndax ndongo yi te ñoom ñëpp ñu ngi fi Samba ngi ci ginnaaw sëñ Tuuba ci kanam kon kon ñime gin leen ñime day wane ni teguñu leen fitna terewul ñoom ñoom ñi nekk ca daara ja dañuy yëg parfois bu ndajee ni yëg dañuy yëg ni maanaam nit ñi dañuy dañuy ñeeku sax den leen laax maanaam te maanaam nan tey jii rek yàlla seeral ne tey kii maanaam bépp koo xam te ne yow yu ja juru ndongo nga bu fekkente ne loolu am na ngay kii te ngeen bàyyi seen doom yi ngeen di gëm di bàyyi sëriñ bi dafa am loo xam te tamit yoonul maanaa ki nga wóolu ba jox ko sa doom da ko jàngaloo sa doom ñëw wax la nga gëm moom gëmooy waxam kon kay gën sa doom beneen bi ci toogu loolu tamit lu lu doy waar la loo xam te dafa xew ci jamono te bari lool ñun ci man la jëkk maanaam Mouhamed Ndiaye mi ma xam ko loolu xam ko bu baax a baax a baax ëllëg nit dajeeg man di ma nettali Mouhamed Ndiaye ma bàyyi li ma jàppoon ci moom di jàpp la di nettali loolu loolu du du fayda du gor du du ak mat loolu tamit nañ ko bàyyi xel li li ma bëgg wax daal mooy Marème mi maanaam taxawaayu waajuram daa feeñ ci am njàngam moo tax mu egsi fii kon bari na ñu mel ni Marème ñu nekk ci daara ñoo xam te ni buñ àggul fi Marème àgg seeni waajur moon ko teg ñu ngi jégaluwaat bu baax di baax la wax